بسم الله الرحمن الرحيم كل خمنا دي نيو رك تامبلي ان شاء الله تعالى تيري بي تيري بي مو تود زور القائد في علم الفرائد كيكو واي نك مي تود محمد ابن المختار ابن الحميد القلاوي موم نك خمنا ترجمام دو نيو سي دم نخ غسو نتي لياتو لو خاني ديس نكو مانا ليرال واي bàyyee ko ba yeneen jamono wala ñu bàyyee ko suñ suñ daara yi nekk ci biir incha allahu taala bu defee wàllu def tamhid yi ci wàllu xam-xamu miras ak yëpp rek dañ koy bàyyee kilifa yi suñu ustaas yi suñu suñ daara yi incha allahu taala bu ko defee ñun ñu deema ñëw rek ci yaxub téere bi tàmbale fi borom téere bi tàmbale muy bismillahi rahmani rahim abda'u bismillahi kay tatimma barakatan nasmi allazi ahamma borom téere bi gannaaw ba mu tàmbalee bismillahi rahmaani rahim waxaat ko ci way ne abda'u danaa tàmbale bismillahi ci turu yàlla kay tatimma ngir mu mat barakatan nazmi barke way wi allazi waa nga xam ne aham ma itteel na ngi tàmbale bismillah yonent bi bismillahi arrahmaani arrahim fa huwa abtar ay nafisun wa qalilul baraka motax eh, mu tambale bismillah ngir ne téerem bi na am barke te barke bi ma sëkk mo bañ a dugg ci li hadis bi wax ne mépp mbir moo xam ne mbir moo am solo la te tàmbale wuñ ko bismillahi rrahmani rrahim day néew barke lool bu ca barke amee day néew lool mu ne alhamdu mboolem xeeti cant yi lillahi aji yey la ñeel yàlla allazi yàlla mi nga xam ne tawalla féetewoo na méngoo na xismal faraidi séddale xam-xami miras séddale cëri miras ala kawe na wa jàllaate mu màgg bi nafsihi ci jëmmam wala yakil te wakiilut xisman ak séddale ala eh, ala eh, muxarrabin ci malaaka muxarrab wala ala man du caagee ne koo xam ne ursila yónneef na ko borom téere bi nee na mi ngi tàmbulee ci sant yàlla mboolem luñ wax ne mooy xeeti cant rek boo ko limee ne ñeent la yaa xam boo ko limee lu ñeent wala lu ko gën a néew waaye lépp day cant rek koy sant yàlla suñu borom tabaaraka wa taala mu ne yàlla nag mooy ki nga xam moom ci boppam moo féetewoo miiras maanaam séddale ko ak leeral ko kenn ku nekk lu toll nan la war a dond waaw loolu nee yàlla ci boppam moo ko féetewoo leeral waaw au lieu mu koy jox am malaaka sax mu koy wàcc mbaa mu koy wax yu kenn ci ay yonenteem ngir kooka di leeral ne miraas ko faatu nii lañ koy doon rek ni yàlla ci boppam moo ko leeral ci alquran yusikumullahu fi awlaadikum lizakari mislu abdil unsayayni eh, ba daanoo ca wasiyatan min allahi wallahu alimun alim yastaftuunaka qulillahu yuftikum fil kalala ane yàlla moo leeral miraas ci alquran bam leer nañ la ci gën a yéeme it ba mu ko leeralee ba noppi da ca bégle waaye da caa xuppe it boole ca ndax wax na ne képp koo xam ne sàmmonte na ko nii ma ko diglee rey eh, dig na ko ca àjjana waaw waaye képp koo xam ne defe na ko naneen nu bokkut ak nii ma ko diglee nag xupp ko xupp yu dara dara loolu mi ngi ci alxuraan boo delloo ci suur nisaa da nga ko gis mu leer naññi hmm. eh, kon eh, yàlla moo jàngaleel boppam miraas loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko nee na inna taala lam yakil qismata mawarisikum ila nabiyin mursal wala ila malakin muqarrab walakin tawalla bayaanuha fa qasamaha abyana qismin mhm. kon loolu ab xadis la woo xam ne yonente bi moo wax loolu nga xam ne moom la borom wax ci wayam yi borom téere bi ne summa salaatuhu topp ñaan dolli teral ala yàlla na nekk ci gaa nga xam ne xadda ñaaxe na ala taallumil furóodi ci xamlu miras xam-xamu miras xaddan ak ñaaxe gannaaw bam sant yàlla mi ngi ci teg ci di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi nga xam ne moom daa ñaaxe lool ci ne nañ jàng miras te buñ ko jàngee ba xam ko nañ ko jàngalewaat yonente boobu nga xam ne ñaaxe na ci lool ñu ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ak mucc yonent bi wax na ci hadiis ba nee na taallamul faraida wa allimuha nnaas fa in imru'un maqbudun wa inna hadha al ilma sa wa tusharu wa tusharu lfitan xata yaxtalifa arrajulaani fi lfarida fala yajidaani man yafsilu baynahuma hadis boobu saxaxol xaakim wéral na ko wa xayruhu ñeneen ñi dural na ko wa xasanahul mutaaxiroon ba tey warawaa ibnu maaja bi sanadin xasanin xan abi hurayra radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal taallamu lfaraida fa innaha min dinikum wa innaha nisfu lilmi wa innahu awalu ilmin yunzahu min ummati waaw boobu it xadis euh, bu njëkk ba dane na ngeen jàng xam-xamu miraas na ko jàng ba xam ko te bu ngeen ko xamee ngeen jàngalaat ko nit ñi na ko xamalaat nit ñi ndax man kat nit laa koo xam ne soxuma fi di woy daa fiy jóge waaw waaw te xam-xam bii di xam-xamu miraas daañu ko fi jël si am daañu ko jël waaw boobaa nag na dana feeñ ci kaw suuf si nee na moom sallallahu alayhi wa sallam dañ dem ba ñaari nit dana danañu juyoo ci masala miraas waaye neena duñu am sax koo xam ne moo leen cay teqale wax leen ca la ca wér maanaam ñaari nit jàppante ci xam-xamu mirage juyoo ci kii ne nii la kenn du nii ñuy wut koo xam ne ku xam mirage la mën leen caa teqale wax ne ah yow ko diaaju masalim yi nii la nee na loolu dañ dem ba mu jafe lool te loolu ku ne xam ne ne suñ jamono jii loolu mu ngi tàppale di néew ndax da ngay dem ci majalis bu rëy nga gis fa lu mat mbooloo ñuy jàng xam-xam doo ci gis kenn ko yor téere mirage te ñooñu ñëpp koo ca waxoon ne ko waa yow miraas ndax yaa ngi koy jàng dana la si déedéet miraas moom moom nangam nangam xamal la ne daal miraas moom daa jafe ba tax na moom booleegu ko ci programme bi loolu nag moom yàggees nañ cee yeete di ci wax ne miraas moom mm, xëy na jafe giñ ci wax moom moom daanaka eh, demewul noonu xëy na ñu naan dañ ko dañ ko daa jafe dañ ko jàngu rek ak dégg nit daa jafe daa jafe ñu toppandoo leen ci rek mm. hadis bi ci topp yonent bi alayhi salaam dane na ngeen jàng xam-xamu miraas ndax daa bokk ci seen diine waaw te moom sax mel na ni mooy genn wàllu xam-xam te mooy xam-xam bi nga xam ne moom la ñuy njëkk a nocc ci sama xeet wi xam-xam bi ñuy njëkk a jël ci sama xeet wi nee na mooy xam-xamu miraas kon eh, loolu ñaari xadis yooyu doy na ci sëkk ab soññe eh, am na ba beneen xadis boo xam ne برام سرابي اني نكو العلم الثلاثة ولا العلوم الثلاثة آية محكمة وسنة قائمة وفريدة عادلة عن يعني وويس القرآن ويس سنة وفريدة عادلة ميراس مجاريون آه، وروي أيضا أن من قطع ميراسا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة الله أكبر يمي يمي لأن كيف كو خمني dog na miraas moo xam ne yàlla moo ko farataal yàlla kon dana dog ak doonoom ca àjjana hmm. kon loolu it ay tegtal la yuy wane xam-xamu miraas lu am solo la wa alihi ak ñoñ ña wa sahbihi ak sahabam ya al uduli ña di way maandu alwaare siina ñay way dondo minhu ci yonante bi ak sa soli gën ja sori paju wa muqtafin ak aje xeeñtu li muqtafin ñeel aje xeeñtu li muqtafin ñeel aje xeeñtu maxa salaamin ànd ak dolli daa imin juy aji sax hmm. laa yent fii boobu du jeex daa ñaanaloon yonent bi salaatu wasalaam muy ñaan nag salaatu wasalaam googe yàlla boole ko yonent bi ak ñoñam ña mooy euh, ñoñam ñu waxee àll euh, am na ñu koy firé mooy ay jege ñaarem ñi nga xam ne gëm nañ ok daal duñ dugg ci loola sax ndax wutee daf ñuy yàgg rek waaye ñooñam ña ak saxaabaam yi moo leen koo xam ne jamonoonte woon na ak moom te gëm ko te daje woon ak bi te murtatut wéy ca gëm googu ba faatu dikkal ko ñun ñëpp yàlla na yàlla saxala leen salaatu wasalaam ak képp koo xam ne ñëw nga seen ginnaaw te jéem a xeeñtu yoon wañ jaaroon te di fa jéem a jaar rek di leen jéem a roy rek yàlla yàlla defal la tawfiix maanaam yàlla defal la mucc ak barke mu wa baadu gannaaw sant yàlla ak julli ci yonante bi fal maqsuudu la ñu jublu nazmun aw way la yaati boobu dana dikke bi kullima ci lépp loo xam ne fil irsi nekk na ci dond min xaalaatin ci ay mbir min fardin ci kuy dond ab cër aw xujbin wala ku yiir li fardin ñeel ab cër aji ñaareel aw min xusubatin wala ci ak xasabaal wamin xirmaanin ak ci ak ci ak xañ mooy yiir goo xam ne yiiru xañ la nga xam ne kooku doodu doondati dara dara nee na gannaaw ba xam ne nag sant naa yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam eh, li ma taxa a nag mooy way téere boo xam ne dama ciy jéem leeral ay masala yoo xam ne day aju ci masala yi miraas waaw masala yi miraas hmm. eh, tàmbalee ci ñiy dondu ay cër ma wax la leen cër yi ñiy dondu nag yi nga xam ne moo ñëw ci alquran juróom-benn yi la nisif nisif mooy genn wàllu alal luñu xaaj ñaari xaaj benn xaaj ak rubu mooy luñ def ñeenti xaaj benn ba sumun mooy luñ def juróom-ñetti xaaj benn ba sudus mooy luñ xaaj juróom-benn xaaj benn ba wa sulusun mooy luñ def ñetti xaaj benn ba o saani ñaari ceer mooy luñ def ñetti xaaj ñaar ya waaw loolu mooy cër yi nga xam ne moo ñëw ci alquran ñu di ko dollante hmm. bu ñu waxee xuj bu mooy yiir xuj mooy aay rek mooy aay isa manahu ani duxuli yir hmm. yiir nag ci miraas moom dafa am ay xaaj dafa am yiir goo xam ne yiirug xuj bu xermaan lañ ko wax mooy yiir la dootoo dollante dara am yiir goo xam ne daf lay tuxale ci cër rek yóbbu la ci cër waaw mën na laa tuxale ci cër bu gën a bëri indi la ci cër bu gën a néew waaw loolu mën nañ ci joxe misaal ni ki mbokk yi lu mat ñaari mbokk dañuy tuxale yaay ci sulus andi ko ci sudus ni ki noonu doom yi noonu lay def yaay loolu mooy tuxale ko ci cëram ba gën a bëri andi ko ci cëram ba euh, gën a néew am na it tuxal la jële la ci ngay doon ab cër indi la ci xasabaal kooku doom bu jigéen ak sët bu jigéen danañ koy def mbokk mu jigéen buñ duggee ci biir dana gën a leer ba tey liñ tudde nag xujbul xirmaan muy yiir goo xam ne e, dalay téye dondo kooku moom e, buñ duggee ci biir dana gën a leer ni ki doom ju góor doom ju góor ak baay yooyu dañ koy def fi ci misaal doom bu góor bu fi nekkee sët bu góor du dond menn mbokk yi dootu dondati ci mbokk yi bay bu fi nekké menn mbokk du dondati ci mbokk yi dom bu jigen bu fi nekké wala sët bu jigen wala maam da ngay gis ne dañuy yir mbokk ci wal ndey eh, niki ki noonu ndey bu fi nekké da ngay gis ne day yir maam maam maam ju jigen ji jur yaay wala maam jigen jur bay lolu ay misal la rek e eh, jang mi deug deug ci bir téré bi la nekk hmm. wallahu yalla nak arju lañuy ñaan ak yoffe xamu deppaleñu ñu ñeel a nga xam ne fii nekk na ci arrasaada njub ga wa sawabu ak njub ga xulima euh, xameef na ko lima hmm. ñeel la nga xam ne xulima xameef na ko fii ci arrasaada njub wa sawabu hmm. waaye yekkoon ak mu nekk indoo fa moom maq bu wulan di lu ñu nangu mu daxiran tey lu ñuy denc sawabu ab yoolam man xuulan tey lu ñuy tuxal mu bañ a yem ci kenn na ko kee jële ci kii kee jële ko ci kii sa fal Fall ko ci sëñ alaaji si ko ci Oustaz Ibrahima muy doon lu ñuy tuxal hmm. wasalu dinaa ñaan na ndimbal la bi kulli xaalin ci mépp mbir fii saairil aqwaali ci mboolem wax yi wala afaali ak jëfe nee na mi ngi sàkku ci yàlla mu dimbale ko waaw ci mboolem ay waxam ak ci mboolem am jëfam ñu ne yàlla dimbale ñu ci suñ mboolem suñuy wax ak suñ mboolem suñuy ay jëf xam naa kon foofu la ñuy taxaw bu yàlla dogalee ñu waat ci darsu bi ci topp rek ñu jàll ci baabu nag. bi ci sopp di tar tiibul xuquuq incha allahu taala di ñaan suñu borom defal nu ak dégg ak jariñu xam naa borom tey eh, xam naa kon borom xam-xam yi ak kilifa yi ñu xam ne tari baangu kon dafay ñu mën a seet nag liñ ci jàpp ne mokk na ah, ñu wax ne mokk na kon alhamdulilah liñ ci jàpp ne mokk di buñ ñu ko waxee incha allah ñu delloo ko nafaraat incha allah ñu ngi ñaan suñu borom defal nu ak dégg ak jariñu ci barkeb sëriñ bi